bon cadreur yi cadreur yi pare ngeen. c'est bon. C'est bon C'est bon, wow. C'est bon, hein Voilà. Un, un, un. Seconde, 3, 2, 1, 0, go. Depuis 2000, laa commencé di voté fii ci centre école HLM Grand Médine bu Parcelles Assainies c'est la première fois ma ñëw rek jubal daal di voté dama faral di rang su ma koy def te amul benn élection boo xam ne raté naa ko pour ñëw voté accomplir sama devoir civique pour la première fois ma ñëw sama biro de vote daal di jubal voté directement amul kenn koo xam ne topp naa si ginnaaw te ba ma wonee ginnaaw bureau vote bi dafa mel ni rang ba léegi amu fi loolu la muy tekki mooy lu ñu doon tàmm di gis si centre de vote bi te gëm naa ne soo moytu si yeneen centre de vote yi la gisuñu ko mooy sénégalais yi ni ñuy war di génnee heure bi des na dañ leen di wax nag ne leen élection bii ñuy jëm élection bu am solo la suñu démocratie élection bu am solo la si seen baat ñoom si seen kàddu ñoom parce que seeni mbëbët seen bëgg-bëgg li ñu namm pour contrôler li nga xamante ne exécutif mu ngi koy def lu ñu namm pour fexe ba benn dérive du am ñoom dañu war a jël kàddu boobu jox ko ay nit ñu représenter leen assemblée nationale loolu mooy la démocratie représentative maanaam élection bii élection wu peuple sénégalais yi la élection bii élection la pour tànn ñi leen di teewal assemblée nationale la moo tax ñu ngi leen di woo ngeen génn massivement ngeen voté massivement am nañu Sénégal tradition électorale xam ngeen nu ñuy vote di ngeen ko def ci jàmm di ngeen ko def ci teraanga te jàpp nañ ne à chaque fois ñu voté suñu xëyee dañuy dem liggéey yi waaye aussi tàmm nañ di gis sénégalais yi it ñu voter ñu accomplir le devoir citoyen moo tax dañuy ñaax population yi ñu génn massivement ñu dem voter ji choisir tànn seeni député député yu leen war a représenter assemblée nationale député yi nga xamante ne dañu war a saytu ñi fi nekk tey liggéey bu ñu war a def ñu saytu ko xool lu si baax ak lu si baaxul ñu mën a teewal population yi beneen bu ma si yokk mooy ni population yi amee habitude voter noonu la administration sénégalaise am habitude u organiser ay élections le Sénégal est un pays démocratique une grande démocratie boo xam ne def na ay preuve en en matière électorale dañuy ñaax tamit ñuy organiser élection yi lépp li si war en termes de transparence ñu matal ko ba mu mat sëkk parce que fajar gi suba fi lañ nekk nii mbir mi day dem ba ngoon jàpp nañ ne calme bu ñu gis transparence bu ñu namm ci élection te yàgg ko gis loolu dina dem jusqu'au bout ni tax ma koy préciser parce que dafa am ñu ñuy jiite ñoo xamante ne ne kenn si ñoom koo xamante ne ne taxaw na ci campagne électorale bi ñëpp di ko dégg mu ne dafay jox ay injonction mën na jox ay injonction ministre de la justice ku mu war a topp mu topp ko koo xamante ne ne gis na ne ne war nañ ko poursuivre mu poursuivre ko loolu am na ci droit noonu lañ jàpp ne ne ne comme moom du hors la loi la comme moom du démocrate mën na tamit xelam for mu for xi xelam ne war naa jox ay injonction ministre de l'intérieur si ni ñuy dérouler élection yi war na war na jox ay injonction ministre de la justice par rapport ak candidats yi parce que rumeurs yi bëri na si ay arrestation yu ñu bëgg def si ay candidats rumeurs yi bëri na par rapport ak lu ñu bëgg def si élection yi donc ñu ngi ñaax administration bi ñu ngi wax le ministre de l'intérieur le ministre de la justice ñu jël toutes leurs responsabilités on a besoin dañu soxla dem si ay élections libre et transparentes dañu soxla suñu démocratie mu wane wanewaat boppam tey dañu soxla au soir du 17 te muy tey jii sénégalais yi ñu exprimé wu te sénégalais yi gën a yi seen décision boobu ñu respecté ko jërëjëf.